yow yaay kan. ñagas numéro 2. Ah. waaw doomu Colobane. ñaataat nga am. man man fàtte naa ko de yaay day naax. Ah. fàtte naa ko yaay day naax waxuma at yi quoi. si dara. non waxuma si dara. sax ban at nga xaw nga jug. ah waxuma ko de. Ah. mais sama carte d'identité daal 1900 xaw ma 1999 foofu ma. waa waaw 1999 19 19 kii 99. loolu lañ si biir waaw loolu lañ si biir nga ñaata.